kooku mooy Seydina Omar waaw yal na yàlla defal ñu barke ñu ko yàlla defal li mu wax rek mooy ci ñi tuub ñu muy tuub mooy quarante position waaye góorgóorloom ak jomam moo ko indi mu nekk deuxième position ci la ko yonent bi taggee woon sallallahu alayhi wa sallam ne ku la ceeb la bu tuubee moo la mën islam mu ne looloo indi Omar fii mu tege jom jam amoon ca ceeb la ko moom la indaale ci l'islam jigéen ñii di muuru seen aayay muuraay ci ci Seydina Omar la jaar bu ñu toon moom xaw yeeku balaa may dee dégg kuy wax ci tele bi naan arab yi dañ daan muuru muuru tradition arab yi la ma ne kon kii jàngut dégg naa ko benn intellectuel di ko wax ma jàngut na yem ci ministère am gi rek te suñu diine ji ma ne yi dañuy xaweeku nii sénégalais yi di xaweeku noonu lañ daan xaweeku noonu lañ daan xawwi ko Seydina Omar moo soxla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy waxtu bëccëg am na ñu ne du waxtu bëccëg waaye lu mën a am moo soxla yonent bi ñëw nuyoo ñu fay ko mu dugg gis ñoom ñëpp ñu nekk à la légère maanaam bàyyeeku li waral li ñuy wax bàyyeeku Seydina Omar delloowaat kenn ci njaboot gi ñoo ne ko ah loo yegg si sang baa ngi ci biir mu ne ko ne ko du ma yegg si li ma koy soxla soxla na wax waa këram yi ñu muuru muur seen i ma door a dugg si wa illaa ma xaar ko ca jàkka ja muñ xaar ko ca jàkka ja jibril yàlla ne ko dem keroog la laaye muuraay wàcc fekk yonent baa ngi sangu mu jóg toog ñàkk tooy xet ndax bu fekkan waxtu sedd la day ñàkk ci waxtu sedd la tombé woon bu dee waxtu tàngaay la day liw bay lox yàlla mën na fet bi mu toogee ba dellusiwaat nag mu jàng laay ci lañ ko ne pourtant Omar lii la doon revendiqué bi dugg yaa ayyuhan nabi qul li azwaajika bu fekkoon ñu muuru du tàmbalee foofu <laughs> bu fekkoon ñu muuru du tàmbalee foofu nabi qul li wa banaatika su fekkoon ñu muuru du ko wax wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna keroog la muuraay wàcc yonent bi nee na arab yi ñoo baax ci ñaar ñu ne ko ci ban te yëpp ci Seydina Omar la jaar nag sàngara bu xaraamee ci Seydina Omar la jaar lii mën naa la ci indi yoo xam ne Seydina Omar a tax mu xaraam maa ko jom yoon la benn bi dañoo mandi di xuloo mujj gi beneen bi ñu invité leen ñu mandi di xeex ñetteel bi nag ñu xeex ba tojante seen bopp si naa amoon ñëw ci yonent bi fekk yonent bi bi një bi bi njëkk am dañ ñëw ci moom yàlla indi laaya yasalunaka anil xamri xul fii xul eh, fii fiihima yasalunaka anil xamri wal maysir qul fiihi qul fi qul yasalunaka anil xamri wal maysiri wal ansaari qul fiihima ismun kabirun wa manaafiu linnaasi wa ismuhuma akbaru min nafihim yasalunaka anil xamri wal maysiri booboo njëkk a yëg booboo njëkk a yëg jërëjëf sëñ Fall moo tax mu ne qul fiihima la muy ñaar yooyu tax mu wax fiihima yasalunaka anil xamri wal maysir qul fiihima manaafi'un ah lu ma wax léegi ah déedéet manaafi'un déedéet dafa am gis nga alxuraan moo ruume yi ruume la innamal xamru yow yaa ngi may yóbbu ca innamal xamru wal maysiru wal ansaab wal azlaam rijsun min amali cheytaan fajtanibuuhu laallakum tuflihun innama yuridu cheytaan an yuuqia baynakum al adaawata wal baxdaa fi l xamri wal maysir wa yasuddakum an sabil an sabilillahi wa anil salaati fa hal antum muntahun soxla wu ma boobu bële laa soxla yasalunaka anil xamri wal maysir qul fiihima ah fii manaafiun linnaasi wa ismun kabiir wa wa wa wa ismuhuma akbaru min nafihima booboo njëkk a wàcc fekk boobu xuloo la woon ñu ñëw di ko laaj ne ko yow ki yàlla yónni leeralal ñu ci sàngal la xuloo yi bari na ku naan ñu xuloo rek yàlla ne ko wax leen ne naanum sàngara njëriñ a ngi waaye lor yaa ëpp njëriñ njëriñ a ngi ci lor a ngi xam nga ko ci njëriñ nag boo naanagul te di ko jaay day faj maanaam la ca dul màndil day faj waaye boo ci xasee màndil nag lor la moo tax mu am na njëriñ am na lor waaye lor bi ëpp njëriñ bi gaa yi ne comme am na lor am na njëriñ ñii ne ñun bàyyi na ñii ne ñun dañuy continuer ñu dem ba. xeex bu métti ñi ñëwaat ci yonent yone yàlla ne ko léegi nag décrété na laa taqrabu salaata wa antum sukaara hatta taalamu ma taqulu bu leen naanati fekk julli jege na ñii nga xam ne dañ bëgg sàngara lool dañuy yeewu fajar teel a julli fajar man bi balaa tisbaar mu am ñu ne ñoom diggante tisbaar ak takkusaan mënuñ fee mandi mu rees yàlla dafa ne boo mandee tisbaar balaa takkusaan war naa rees nga mun a julli takkusaan ñii ne diggante moo gën a tee jege ñii ne timis ak gee moo gën a tee jege ñii ne damay a nag ba julli gee mandi ne tax ci balaa fajar mu rees ñu ne comme yii yëpp am na ci gars yi ne am ñu ne man daal banaa tollu fii daal di réglé diggante takkusaan ak timis bañ a mandi loolu mënuma ko bàyyi naa waaye am ñu dëgër bopp am ñoo xam ne ñoom respecté nañ dañuy mandi benn tat waaye balaa kii moom mu mandi ci grève ñu julli ñu dem nag benn invitation boo xam ne Serigne Seydina Omar mu nga fa woon ñu mandi ba xaañante nag deret di deret tuur Seydina Omar waaxu ñëw ci yonent bi ne ko yaa rasulallah bayyin lana fil xamri bayyaanan shaafian aw saafiyan ñaar yëpp boo ci wax baax shaafi'an aw saafiyan comme kenn xamul ban la ci waxoon moo tax da ngay indi ñaari version yëpp shaafi'an mooy buy buy buy buy saafara saafiyan bi saadi ah buy leeral dégg nga rek yàlla di jibril ci la aay yii may wax nag wàcc moom la sang bi doon wax yaa ayyuha alladina amanu innama alxamru kon ku gëmul yàlla bokk yaa ayyuha alladina amanu la moom la wala oustaz ba waaw innama alxamru noonu taw kii bu naanati am rijisun min amali cheytan fajtanibuuhu laallakum tuflihuun innamaa yuriidu cheytan an yuuqi'a baynakum al-'adaawata wal-baghdaa'a fil xamri wal maysiri wa yasuddakum an sabiilillaahi wa ani salaati fa hal antum muntahuun qaaluu intahaynaa yaa rasuulallaah keroog yonent bi nee na ñaar yi naw naa ci waa Medina mu ne keroog bi la teree sàngara ak wure ci laa ne ñoo mën a mandi yonent bi nee na dañ dem ci seen kër yi di génne sàngara yi di ko tuur ci mbedd mi ba mel ni taw waane ma ne kon ñoo mënoon a mandi yonent bi wax de salaay salaam mu ne waa Medina dañ dugg ci seen biir kër yi di jël sàngara si di tuur ci mbedd bi ba keroog da ngay foog ne taw waane la la sàngara ca lañ bàyyi naan mu ne waaye keroog bi aaya muuraay wàccee mu ne saxaaba yi saxaabatu yi jigéen ñi jigéen ñi dañ doon lakk dagg seen lafu sër yi di ko teg ci seen kaw bopp ba kenn deseetul sër bu jot. salaay salaam yéen jigéen ñi yéen a koy dégg waaw kañ nee na dañ doon seen lafu sër yi di ko teg ci seen kaw bopp yi ba kenn deseetul sër bu jot. mu ne ñaar yi yàlla gërëm na ci waa Médine kon yooyu te yooyu ngi jaar ci Seydina Omar mën naa la ci li ma téeméer ak ñaar yoo xam ne yëpp ci Seydina Omar la jaar moo tax keroog bi ko Seydatuna Aïcha ñaanee ci jeexal bi mu ñaanee Seydatuna Aïcha ne ko dama bëggoon barab ba des foofu sa bopp ka ko dencal pour boo génnee àddina ñu denc la waaye man Omar jam-jam bi def naa li Rasulullaay waxoon ndax daf ma noon buñ la jamee waxtu fajam lay doon ki lay jam ci sàppe kanam gi lay nekk ci sa xol la koy jam boo siggee wutalal keneen julli mu mu mottali julli gi nga dem nga dem faju waaye buñ la la ko fajalee ba noppi rasulullah wax te ñëwagul mu ne ko buñ la ko fajalee ba noppi naanal meew su jaaree fi jam-jam bi nekk génn xamal ne sa àpp jot na ndax yaa ñaanoon yàlla dee ci jihaad si naa moo tax daan toog di jooy ne ko yàlla ñaan naa la ba tey mayoon xaw ma lu ma la def bi mayoon jaasi jii ma yor doon xeex ci jiyaat dam ni ma doon reyee laa bëggoon ñu reyee ma dogaloo ko ci ma lu tax dogaloo ñu rey ma fi sabilillahi allazina qutilu fi sabilillahi laa taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yarzuqun farihina bima aataahum allahu wa rasuluhu ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون te ba mu koy wax kan moom Omar mu nga taxaw ci armeelu baax yi ci armeelu baax yi nag waaye man man naan gis nga lii ma lay wax nii nag maa ngi am tawfiqul ilaahi lillahi shukran lillahi ñi nga dégg gars yi di nekk naan am na naar bu ma ma dëgg la naar bi ci rawdu rasulullahi da ñëwul jox ma loxo dama am min ab xaajin rasulu xaqan jiin mbay bu maam borom Touba mu ngi fii amokat ñoo àndoon hmm. Jibril Bodian ñoo àndoon Khalifa Diallo ñoo àndoon hmm. ay seede yu bare bare colonel Balde yal na ko yàlla yërëm ñoo àndoon hmm. maxa taaliba maam borom Touba la ñoo àndoon ñëpp a nga maa ngi toog ñi may waxtaan ci Seydina Omar laa doon waxtaan naar bi ñëw jox ma wax la muy wax ba noppi ne ma li ngay wax sa xam-xam mayu la da kii li kilifa bu baax moo la ko may mu ne ma te huwa ala jabul alam keroog laay doon gis naar dem jënd ñetti mbaxana da baax indil jox ma benn jox xalifa jàll benn jox xama kenn xamatuma kan nga kii mayoon naa ko sax soxna mu bi ñibbisi mu jox ko benn cin layeen ma làkk ko ci arab ne ko wa hada mu ne ma la laysa min tariqati tijaaniya wa hada huwa lii taalibe tijaan koy sol te moom taalibe jàmbur la bëgguma ko rax waaye sëriñam dina ko teral nii la ma wax keroog ko may ma man bi ma jox ma jox man aw ma keroog mba xam ne ma jox laa jox tiin bay ba léegi tiin mbayam ko dañ ci kër te boobu ci Seydina Omar laa doon waxtaan yokk bi mu yokkaat masjidul nabawi lam fa def kenn mënu la ko may expliqué gars yi poto yi nga xam ne moom la ko yónnent bi bàyyi woon poto yi fa Seydina Aboubacar bàyyi woon bi mu ko yokkee poto yi fa Seydina Ousmane bàyyi woon ak yi fa Seydina Ali bàyyi ma xool leen li fi Seydina Omar def kenn defu ko ak réforme yi mu def muy jooy pour dee ci l'islam te bi muy wax taxaw ci baax yi naan leen yéen a ñàkk fayda yéen ñi yéen néew yi tëdd ñu suul leen yéen bàmmeel rek tax mënu leen a wax ak man yéen a ñàkk fayda lu ngeen di def lan mooy seen mbir gannaaw ci jiyaat ngeen dee luy seen mbir yéen ñàkk ngeen fayda seen jabar yi ngeen fi bàyyoon gars yi doon nañ leen de ñu ngi leen di wax lañ leen doon wax dégg nga wax mun leen jabar yi ngeen fi bàyyi woon yëpp gars yi doon nañ leen ñu ngi leen di wax lañ leen daan wax yéen ñi tëdd fii mooy ya yaa fi ne maa ngi door a noyyi du yow du ma xam dundu àdduna yooyu sëy naa man ne ko ñu ngi leen wax de lañ leen daan wax la ñuy wax gaa yi leen doon lal ya ngeen gënoon a bëgg fiir bay bëgg a dee kenn fa do daaw ko jeg góor ñaa ngi cay tëdd yéen a ñàkk fay da du ngeen ma wuyu wax ba pare ne wóor ñu bëgg a dem dégg benn xaaj mooy koy wax te gisul jëmm yi ne ko yaa amiral muminina mu wëlbate ko taxaw gisul benn jëmm mu ne ko labbayka mais tiitu xam na ne am na koy waxal mu ne ko labbayka man anta mu ne ko du ma la wax man la kan waaye fa lillahi alhamdu wa shukr ñun kañ yéen la ñeenam qad wajadna ma waadana rabbuna haqqan lépp lu ñu yàlla digoon ñu ngi koy gis yéen la ñeenam seen dal na mu ut dépense ay waay Omar maa la yërëm yow utum dépense mu ngi lay bëgg a rey yow Omar looy wax yow fi mu ne nii sa waa kër ñun lañ buñu xatal ñun fii pour ay na yaa ngi wër dara jeexu yéen lañ yërëm na de. تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ورسوله ويستبشرون بالذين لم يلحقهم وإياهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون yéen la ñuy wax que yal na ngeen am ñii ñu am waaye ñun faale duñ jongoma yooyu ndax yu ko dàq ngi fi lekk yooyu yu ko dàq ngi fi bànneex biñ fekk fii amul foofu Omar yaa ñàkk fay da gaawal ñëw si naa ne ko sa dàq dama doon seet ndax li yàlla liggéey def na ko daf daan wax doon seet ndax li yàlla liggéey def na ko balaa maa ñëw keroog la wax ne buñ demoon ba bés bi ah. yàlla annoncé ca rajo ba ñëpp di dégg mu ne ñëpp baal naa leen même des benn jaam kooku fokk ma duma ko yóbbu ko safar Seydina Omar ne duma ko jiiñ kenn dama naan man Omar te al ashru mubashiruna bil janna ci la bokk fukk yi yàlla dig àjjana ci la bokk ah loolu mooy yéene ñëpp yiw ci laa laa jàpp jëlee woon ne su ma mënoon damay wax yàlla mu yàq sama jëmm ji yéen ñëpp dégg nga di ko pompé di ko pompé dem fees pare ñëpp ci man am lu ma des ci Seydina Omar la ko jëlee waaw Seydina a wax suñ demoon ba bés bañ ci yàlla ne jaam yëpp baal baal naa leen ba des sama benn jaam kooku ko ma duma ko ba mu bëgg a dee yóbbu ko jaam Seydina Omar ne billaahi dama naan man la duma ko jiiñ kenn dama naan man la ndax fi ma jaar balaa may dugg ci lislaam su ma ko yàlla baal du ma bàyyi loolu fi te ko maye. wala déet. lu ko ko may si ndaw mar boobu moom buñ ko toppee duñ fi jóg. saxaaba yi ëpp cër ci yàlla ci la bokk. yi ëpp cër ci yàlla. mooy deuxième position. ñëpp nag laa wax. bokkal ak yonent bi dara jege ko sësal ci moom gannaaw Seydina Abubakar Seydina Omar ci moom. te réforme yi mu def Seydina Abubakar Seydina Abubakar def xam nga fu ko Aboubacar sutee xam nga fu mu ko sutee nañ ko bàyyi asi ah, kooku benn sew sew la yàgg am nag yonent bi la sallallahu ak jonjoog bu mu doon jonjoog moom ci ci tëdd mu tëdd kole mu kole mu di ko lënn dégg nga yooyu la ko ëppale ak mu xëcc ko déyi ñu ànd di dem ñu tukki ba yàlla jox ko garabu saa nees mbéy mi loolu garab la saa nees mbéy mi fa la ko rawee rek ñaar ñii kenn noonu nga koy firi <laughs> noonu nga koy firi saa nees mbéy mi ñaar ñii kenn isuma fi la xaar yi. moo tax waxul fi la xaar yi ni li ko waxul fi la xaar زان اثنين إذ هما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لوه إن الله مع مع مع مع معي mu ne ko inna allaha maana dugalaale képp kuy xeebam hmm. ci yonent yàlla Moussa ba mu ca tolloo hmm. dafa ne rabbi ma'i inna rabbi ma'i sa yahdi yonent bi toll ci ne inna allaha maana indiwul rabbi sax laa ismu zaat la indi <laughs> différence bi sax sax tellement fay na ko ma que rabb la indi xam nga lu tax yàllaa ko xettali foofu xettali ba dafa ànd ak condition condition bu muy dóoral sa yet mu dóor xarut mu dóor xarut mu dóor xarut ñetteeli dóor bi la ko ne salli alal moxtaari mu dóor mu xar fan falaxam minhu isna asara ay nan fukki yoon ak ñaar mu xar ko kii nag boo déggee wax ji di nga xam ne amul condition inna allah ismu zaat la indi ndax allahu maahuma moo tax mu ne ko inna allaha maana moo tax ku ca tolloon ci dëggam rasulullah mu ñëw ci sa wet moo tax yonent sëñ Tuubaa noonu bi moom laa ubbee woon sànq boobu ñii nekkoon ñu sax raaytu rasulallahi yaqazatan fii jeewul ndax booy toll ci condition yooyu yonent bi ñëw nekk ci sa wet di la wéttali di la gidi moo tax yu sëñ Tuubaa mosul bi di ko yonent bi loolu laa ubbee sama boobu xamoo ne dinañ ñii dana naan sëñ a tàqalikoo moom benn seconde mosuñu tàqalikoo ñoom ñaar boo gis sëñ Tuubaa gis yonent bi boo ko ko yéenee moom moo am boo ko ko yéenee wut moo am. man wax yàlla tax ma di ko wax ñii dama koy wax boobu nga fi kon nit ku moom jox ko ko lam am yéene ko ko soo ko ko yéene wut it yàlla moo tax Seydina Omar kenn moom yal nañu yàlla taas ci barkeem yal nañu yàlla taas ci barkeem loolu lim koy am yëpp daf daan xëy di karawaate boppam foofu lay ñaar joxe ñu julli na bu jëliwaan gee ba nopp day dem ci pantare summi mu bëgg ba dese yaramu neen amoon na liif bu mu wékkoon ci liif bi doon te yaru charia la woon moo tax man ñi bu njëkk boo ñëwaan ci seen kër fekk yar buy lonk dañ ko sopp ci sharia jullit bu ne war am yar boo lonk sa kër pour xale yi cëpp cëpp bu gisee yar bu ne ñoom paa da kii de yooyu yëpp amatul léegi bu njëkk mag ñi ko daan def dañuy lonk yar bu saf nga di ko kii boo kii ah yow ajjil ma sama yar ñëpp normal suy naaw ma yar boobu nag su julliwaan gee ci jàkk ji ba nopp day dugg ci pantale jël yar bi ma xëyee suba julli fajar ba pare lii ak lii laa fi def ba tisbaar tisbaar ba takkusaan lii ak lii laa def takkusaan ba ci bis lii laa def ci bis ba gee lii bi may dugg si ci pantale bi lii laa fi def lii laa fi wax waaye taxul mu doy sax xaasibu an tuxaasabu sang baa ko waxoon mais rek leen seen bopp voilà ëllëg bés pénc yàlla di leen rek xëy na sax rafet na gisuma fi lu ñaaw waaye bàyyi rek sëgg jël yàlla karawaase boppam kawara karawaase boppam karawaase boppam karawaase boppam ba yaram yu tàng jël mu teg waaw nii la balaa may dem bés pénc yàlla di ma def nii ma def la ba pare Seydina Ali moo nee na keroog bi ñi di ko sang ñi ko doon sang man Ali ci laa bokk mu ne mark mark yar yi fekk na ko ci ginnaaw ci ko yàlla dig àjjal xaw ma ñun fuñ jëm mu ne mark mark yar yi man Ali fekk naa ko ci diggi gannaaw ci ko yàlla dig àjjal koo koy Seydina Omar ci ne ko la des ci sa barab boobu sa bopp nga ko denc ndax néeg bi yaa ko moom waaye maa la koy yelwaan naan naa meew mi sa borom kër ma ko waxoon soo naanee meew moom mu jaar ci jam-jam bi génn xamal ne da ngay ji sa borom waaye su génnoon nag buñ la fajee mu wér waaye Omar comme yaa ñaanoon dee ci jihaad yàlla dina la rey ci jihaad ndax dañ lay rey fii sabilillahi te ci julli lay doon jullik fajar lay doon diw lay doon waaye diw moom bu ko ko wax moo tax keroog bi mu ko rombee muy daas yónn ci bisu yette na ko ba wax ko tur wi na ko bu ko ko wax na tey kooku ci muhaajir yi la bokk ñëw xam nga lu tax mu da doon am njëkk jox ko lu mu ne def ko kontaan mere ko ci nag yoreel ko ci nag rang ba benn fajar yooyu si naaw ma benn takkusaan mu romb ko muy nambu paaka bi ñu ko defal si naaw ma xool xam ne kii la ko yonent bi doon. mu ne ko yow sa loolu ci loolu di daas ak a mu ne ko wallaahi amiral muminina su noppee yow ni nga ci xam dara mu ñëw nettali ko Seydina Ali Seydina Ali na ko yëg naa ne moo rey demal nga rey. si naa lii waaye moom it xamutoon ne dañ koy rey yàlla lu mu la nëbb woon mu ne ko demal rey ko kookoo lay rey. si naa woon ko àtte bi wàccagul ndax reyeegul kon koo rey mu ne ko self défense la mu ne ko loolu bil rëy bi laa bil chariat. la ilaha illallah. te yonent bi waxoon ne àtte leen ci biti te bàyyi biir bi si naa lay jox ko loxo ne ko sa baxta yaaw ma ñoom ñaar rek ko ko wax daal parce que ku la bëgg a rey ngay rey ko légitime défense la dara du la ci fekk te Omar xam na ni kii koy rey Sina Ali xam na ni kii mooy rey Sina Omar waaye reyee bu ko dogal bi wàcc ba te wonu ko it ne ci yow laa jëm si daf ko làkk rek ne ko lii may defar nii bu noppee yow Omar di nga ci xam dara ñetti fan après la ñëw ci sàppe bi ci ñiy julli deuxième rakk la siggi rek dóor ko Seydina Omar jam ko mu placé Seydina Omar ne saay saay bi def na ma ko la rasulullahi waxoon sa ya rasulallah dal di xëcc parce que Seydina Ali ko am na kenn ci saaba yi daal ko ñu wax ne moom la xaj ne ko continuer julli dal di gëm génneel boppam paaka fajal ko boppam ne nañ ma indil meew boobu gaa yaa ngi julli xamaguñ lu xew te waajaan ci biir sàkk si Seydina Omar ne bu mu dem téye leen mu ko yew ko mu ne gor kenn du ko yeew yeew yi dem ñu mu ne ko yow laay waxal ba ma la rombee la ma la waxoon xamoon naa ne yow si naa moon ne ko wax si naa lii ne ko waxoon naa la ko mu ne ko waaye dogalu yàlla mu ñëw si ci Omar Omar xam ci moom la jëm si naka la koy dawee dogalu yàlla mu jëm si ci Omar Omar xam ne ci moom la jëm si nu ko Omar di dawee naa lii ne ko waxati nga dëgg mu ne ko denc leen ko ci barab na lekk na naan bu leen ko fitnaal bu leen ko bundu xatal du jaam dafa def crime toppatoo leen ko traité leen ko comme être humain lu ngeen ko def lu dul loolu yéen ak yàlla su ma faatoo def leen dogalu àtte bi yàlla ci moom ma wéree fay wala ma baal su ma wéree fay wala ma baal ko su ma dee def leen àtte bi yàlla ci moom. ñu jël waa ji yóbbu prison denc ci la yónnee nag bi mu naanee meew mu mu génn rek ci la yónnee ci Sayyidatuna Aïcha ne daw leen ci Sayyidatuna Aïcha ne ko li ma fi dese bareetu xam naa ay waxtu la comme nii sii di la min def rek ay waxtoo ma fi dese ne leen ko su ma demee maa ngi koy yelwaan barab ba fa des ndax xam naa ni boppam la ko bàyyi na ma ko sarax ko koy bi ñëwee wax ko Seydatuna Aïcha mu yëngal bo ne wax na dëgg de te dara dàqul fii ñu denc sama borom kër muy rasulullah ma tëdd ci wetam fi ñu denc sama baay ma tëdd ci wetam kii ma ñaan aaya daan wàcc am ak moom sama borom kër bi tëdd joxoon ko orma bàyyi woon ko xel yàlla bàyyi ko xel man Aïcha bu yàlla bàyyi xel rasulullah bàyyi la xel nu may def su demee ne may naa te man su ma génnee àddina ngeen yóbbu ma ca baaxee man Aïcha kii moo ko rek jigéen ñëpp war nañu roy ndaw si soxna si la yonent bi joxe ñoon war nañu jigéen ñëpp góor ñi sax war nañu roy ci sayyidatuna ci la ko may loola des deux jours après mu génn àddina ñu indi ko denc ko ci wetu keroog la Sayyidatuna Aïcha bu ay bagages am nekk njëkk a may fanaan nag moom sama borom kër ki ci topp sama baay ki ci toppat ja doonte du jàmm ci man waaye jàmbur la ci man ndax maa ngi wujjeeg doomam bu ñuy wax Hafsa ba pare yàlla ni wa azwaajuhu ummahatuhum soxna yonent bi seen ndey leen yéen ñëpp. kon Omar mii xaraam na waaye nag may dawal sama bopp tuuma man Aïcha ki njëkk daal sama borom kër la ki ci topp sama baay la moo ma waaye kii jàmbur la ci man aménagé leen ma pancré bi ma topp du ma fanaan ci biir rawdu da ci biir rawdu bi la doon di ko lalal ci diggante bi yonent bi génnee àddina basak liñ daan lalal na Aïcha ci wetu bàmmeelu yonent bi mu tëdd teg boppam fi yonent bi teg boppam tànk yi féetee fi yonent bi bàjj rek lay lal nee na léeg-léeg ma dégg mu ne ma yaa Aïcha ma ne ko yaa Rasulallah mu ne ma baateraay bi soppalu la mu ne dama demoon ba foog ni sax demul Seydatuna Aïcha nee na dama demoon ba foog ni yonent bi demul ndax day wax ma di ko dégg mu ne sama papa ñëw ñu suur ko ci wet gi may tëdd ci seen jigéen pendant trois ans def na ko di tëdd ci suuf keroog bi ñu indee Seydina Omar na ko rob ci la ne ah jàmbur fekk si na leen Aïcha ca biti lañ ko aménagé pentre bi mu nekk fa ñaata at di tëdd ci suuf yonent bi génnee àddina mu ngi am 18 ans bi Seydatuna Aïcha di gaañu am na 63 ans 4 mois 63 mooy 18 mathématiciens yi neewu ans yim dund yëpp ci suuf lay jëm jigéen ñi lu ngeen ci déggee kooku laajut lalu reposant donte nag laaj leen ko baax na kooku laalu laajul matelas yi xew li ngay waxee di orthopédique waaye laaj leen ko baax na ci yaram te day guddal fan te góor ñii ma gis leen laaj leen lalu 2 millions maa ko wax. seeral leen seen bopp te takk seen seen ba mu leen ko wax billaay wal kitaab bi bu ngeen dëgëree bopp tuuti góor ñi fekk si la na na dëgër na teeg na jafe man maa ko wax jigéen ñëpp bis bi tey na dëgër na teeg na jafe na dëgër na teeg na jafe ndax góor ñi ma gis bëgguñ lu yomb ku bëggul lu yomb nag jafe jal ko yàlla ne yuridu yuridu laahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yéen ngeen ne lu jafe ngeen bëgg ci bismillah yal nañu yàlla defal dëgg toog ñu ngi jéggalu ñëpp di wax ne kii ñu doon waxtaanee dafa di bu nit mën ta cof rek dem muy Seydina Omar radiyallahu taala anhu yal nañu ko yàlla fayal fa mu tëdd ci wetu rasulullah xam jaaxaan tëralu ko bëgg lu yomb tëralu ko fa yombul ci moom it pour mu dëkk ñun ñii fi nekkit nag képp ku teg sa tànk fa mu ko tegoon booy dugg bàmmeel mu wéttali ndax ñi faatu ñëpp a ngi gisal dañuy seeti wante yëpp nag comme ñii si di la yi demee tey ñu dugal ko ci bàmm muy dugg rek commencé di seeti ay xaritam rek di soppeem ak i maamam yëpp.